man mais bu la neexee c'est un républicain qui parle. c'est un citoyen sénégalais qui parle mais man li ma la wax su may opposé wu lan lay opposé wu du ci débat lii lay opposé samay principe mu ngeeg man ba léegi parce que man du ma APR du Bokk Yaakaar je suis socialiste à vie du ma mës a transhumé ci parti mais Macky li ma la mën a wax mooy dëgg opposition bi tey li ñu doon séntu mooy Idrissa Seck génn li ñu doon séntu tey li koy def Khalifa Sall def ko parce que ñun ci gannaaw Khalifa Sall la ñu nekk mais pourquoi Khalifa Sall mais pourquoi ma nga ni la non attendez déglu ma buuba. buuba li nga bëgg a wax buuba waxal. dama ni la li xaar man. candidat yi nga xam ne demoon nañ ci parrainage bi nekk opposant wu Macky en première ligne ñooñu dañu leen di war di gis waaw non non boo ne ci ginnaaw Khalifa Sall nga nekk te ne Khalifa Sall defu ko mais ma laaj la pourquoi defu ko te yaa ne ci ginnaaw ah, te ku xam ku xam Youssou ku xam Youssou xam xam Mbaye Gueye Faye non hiérarchie ñu déedéet xam Khalifa Sall xam Bamba Fall non non non non hmm. je ne suis pas son premier adjoint ni le deuxième ni le troisième oui mais quand même ça pose problème de choses que tu ne sais pas parce que yow xamuloo pourquoi il n'est pas devant kooku kooku aussi y a non loolu du débat non ça c'est pas le débat nga daan woote marché mais baal ma baal ma daaw de daaw de mii s'il te plaît yow même waa APR yi sa bopp nee na la yow da ngay dem ci kanam dem ñoom si sa bopp <laughs> lay xoolee bët non non dafa nag ñoom seen code boobu lay def Macky Sall yaa bu itam lu da tango tango da ngay def deux pas mais yow la mais mais bu ñu ko ma si kaw waaj rek non non non yow non non non mais si kaw ma man maa noppi ñu dagg yow xam nga li ma la wax moi ce que je ne comprends pas non non man li ma comprendrewul mooy je peux bien être d'accord que tu sois reconnaissant par rapport ak li Macky Sall mën mais tout à l'heure yaa ngi wax ni on ne s'oppose pas mais ta manière de parler de Macky Sall cest dire amul amul benn amul amul benn rigueur. boo xamante ne c'est-à-dire dafa mel ni da ngay. da nga mel ni dafa non non malal non non malal man du ma yënde fii dama ne ñi fi jënd xam nañ leen bu ma taxaw wax ñi fi jënd ak ñi fi jox xaalis xam naa leen waaw dama la dama la man lekk ma ñaar dërëmu Macky Sall soxlawu may postam. man transhumé wu ma tey transhumé wu ma je reste socialiste à vie. non sama wax dafa leer man parti socialiste laa dellu. geste un socialiste à vie mais ñu wax mais may ko mu wax. ànduma ak Macky Sall ci parti ci coalition. il peut lui reconnaître des may saaga nit. non non mais ku def lu baax ñu dama ne li mu bëggoon déroulé déroulé na ko man li may mooy où sont les opposants. non mais la fustigé dire où sont les on peut également dire où Bamba. avec cette avec cette force. avec cette vivacité. avec oui. avec tonique. Bamba qui loolu la xam ci mais loolu chaque fois bu jotee wan naa leen. déedéet xaju buntu këru kenn. xaju buntu këru mais Bouba ana nga yow. Ah. daan wax waxatoo ko léegi. Ah, <laughs> fi daan wax fii waxatoo ko ah. loolu la moo tax ma lay interpellé. dama ne ana Bamba ma wax la ah. damay wax nëbbu ma ko dama ne leen. <laughs> Macky Sall dama leen a wax wax ma déglu yéen da ngeen nangootul déglu ngay déglu bu baax Macky Sall réew mi ñu nekk mu ngi def lu ko neex te day jàll par force te opposition daan wax du jàll suñu bakkan lañ ci teg tey man waxuma ñi nekk second plan li may wax mooy bi ñu naan parrainage bi ñu doon déposé pour parrainage mata ñoo da ngeen vingtaine de candidats ana ñu tey genn wàll gi ànd ñoo mag ñu tey on a l'impression que c'est pas un opposant qui parle en fait. Ah, donc mais bu la neexee c'est un républicain qui parle. c'est un citoyen ah, sénégalais qui parle mais man li la wax su may opposé lan lay opposé du ci débat lii lay opposé samay principe mu ngeeg man ba léeg parce que man du ma APR du Bokk Yaakaar je suis socialiste à vie du ma mës a ci parti mais Macky Sall li ma la mën a wax mooy dëgg opposition bi tey li ñu doon séntu mooy Idrissa li ñu doon séntu tey li Sonko koy def Khalifa Sall def ko parce que ñun ci gannaaw Khalifa Sall la ñu nekk. mais pourquoi Khalifa Sall mais pourquoi ci Barthélémy mu ngi koy ma nga dama ni la non attendez déglu ma buuba. Ah, buuba li nga bëgg a wax buuba li nga bëgg laa waxal. dama ni la li xaar man. candidat yi nga xam ne demoon nañ ci parrainage bi nekk opposant wu Macky en première ligne ñooñu dañu leen di war di gis waaw non non boo ne ci ginnaaw Khalifa Sall nga nekk te ne Khalifa Sall defu ko mais ma laaj la pourquoi defu ko te yaa ne ci ginnaaw ah, te ku xam ku xam Youssou dañu xam Youssou xam xam Mbaye Gueye Faye non hiérarchie ñu déedéet xam Khalifa Sall je suis pas son premier adjoint non non non non hmm. je ne suis pas son premier adjoint ni le deuxième ni le troisième oui mais quand même ça pose problème de choses que tu ne sais pas parce que yow xamuloo pourquoi il n'est pas devant kooku kooku aussi y a non loolu du débat non ça c'est pas le débat non on est pas d'accord débat bi non bu leen daw débat dama ne eh, débat ñun dawuñu de non def non yaa ngi daw débat débat bi mooy dégg débat bi mooy li ñuy xaar yéen yéen yéen yéen buuba yi opposé to yow yow da nga naan opposé yow li ko opposé to ah, non non bu ko indi ci man man <laughs> man man man li ma xam xam sama verbe changé wul sama verbe man changé wul man li ma li ma la leeral mooy man duma Macky Sall duma APR du ma bennoo bokk yaakaar mais social la mais man nag du ma xaju buntu këru kenn ba ku bëgg ma saagal la ma saagal la bu waxtu waxtu wax jotee dinaa wax fa ma war a waxee bu waxtu jëf jotee danaa jëf fa ma war a jëfee mais waxtu wi ñu may xaar ñu opposé wu dëggantaan moo ñuy xëccoo chef de l'opposition alors mais mun nga ma may ma def. malal rapidement parce non, que moi, dama bëgg une question fasse un flashback. Ouais. ci dès le début de l'émission dès le début de l'émission début émission bi tu as attaqué da nga attaqué yow ñoom ñaar loo loo ci attaqué. léegi maa ko attaqué léegi lu la neex ci.